sénégalais dafa soxor sénégalais man seetlu naa sax fan yii nii ñoom borom xaalis rek dégg naa na sax na ne xas sax de xaalis naan sàcc mais gisuma leen sax yéen ngeen yi xas koo xam ni sax amul dara wala ko kenn xamul yéen ñi nit ñi xam ni rek ngeen di saaga nit ñi ñi xam rek ngeen yi toroxal nit ñi ñi xam te yàlla may leen ngeen di jéem a wàcc seen garaat te xamoo leen lu leen yàlla may saayir wala baatin li ngeen di wax dara du fi jàll moo tax ne man ay fiis jàllukaay bi xoolal <laughs> al moo tax ma may leen jàll bi ni leen li ngeen di wax dara du fi jàll man bugguma nit ku soxor bugguma nit ko ko xamati moo tax ma may leen jàll bi abooru jéel léegi kenn du jàll yéen ñépp la neen yi wax da ngeen di nangul maam see rafaal mën a jàll fiis mooy wax a yéen jàllu léegi fii da ngay ñëw ñu jaaral la ci jàll bi nga jàll fa yàlla leen a dund complexe yi ngeen doon faal xolal rut san kal jaa mooy wax ak yéen maam lamp àjjana faal waaye kii fiis la jàllu léegi boo gisee Sénégal ku ne di xaste maa ngi gis jamono yi nag yàlla na ma yàlla baal bëgguma tuddi tur mais yenn saa yenn gi day mel ni ak soxor ak mbon sénégalais yéen leen seen mbokku sénégalais yi xéewal yi yéen leen seen mbokku sénégalais yi jàmm jëm leen a baax soxor gi ngeen nekkeek mbon gi damaa dem ba man damaa sant jamono yi ndax doom fa yàlla nekk fi doom fa yàlla moom nekk fi moo tax gis ngeen ñu ay pii la ay pechet ak ñun suñu yoon néew ci mais bu ñëwee yii kooku dañuy bala muy ñëw ñëpp takk loxo gaay man nag jamono man nag maa rut waaw jàll leexi bi fii moom man sama laxasaay xam ngeen la mooy sama bi bu ñëwee rek jàll jàll fa yàlla ñu jàllale leen mais li ngeen di wax jàllu ay neefere kese jàll fi du jàll ay neefere jàllut ay neefere jàll fi soxor rek laa gis nga di def wax ju soxor rek wax ju bon mais nit koo ñaan bu la moytu mais sax mais bu ko mere doomu aadama la nit warta mere ci alalam ba leen doomu aadama yi ngeen xas ba leen doomu man doomu aadama sax taxumaa jóg man yàlla moo ma ñor moo ma saf sëñ Tuubaa maam seer a Fall point waaye gis naa gars yi dañuy xas président yi man président dundu ma ko aw maa moom benn affaire mais du tax mooy jóg nag di saaga président wala mu koy xas man ay ñoom gis ngeen nitu àdduna yi ngeen di wax Sénégal ak ñëpp dund ma leen du dara. amul kenn koo xamante nii ñi ngeen yi tudd amul kenn koo xam ne nii waaye rus naa sax bu tee sama weer naan yam na ma feeg yooyu lu leer laa leen di wax du ma ci moroomu kenn ca kaw ba ci suuf cat ba cat nitu àdduna yi ngeen yi téye nit ñi ngeen yi teg leen bët ndax lan alalu àdduna ay danay sàcc du maye am na ku ma dégg maa Youssou Ndour bu la ci yónnee maanaam <laughs> weccatam foog mais nit ki bu la yónnee nga dem ñëw da war a jox weccatam mais yow mii di wax yow yaa jubut te yow ko bon nga xam naa ne bàyyi leen wax ju bon bàyyi leen def yu bon seen jëf yi bon yi war ngeen ko bare soxor ba dee yéen nit bu amee alal sax ngeen soxor naan da koo sàcc da koo def ni da koo def nee fii ñi ngeen fi gis ñu si bëri dañoo yàgg nekk fii du dóor waar nit ku ñuul moo soxor sénégalais moo yéene wut mbokkam jariñ sénégalais moo soxor nit day tekki sax mu ne da koo sàcc day doragaw day def nii day exploité nii day def nii bon bi ngeen war a baax yàlla nee na seen soxor geeg seen yéene bon yi ngeen ba ko yàlla moo ko wax de yéen seen bon gii lan la. teenoo soxor waaye mosuma leen a gis ngeen di wax ab néew di doole wala ko pauvre wala dara koo xam ne nii lu mu dee dee lu mu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk dimbali na ndeyam ak baayam ay waajuram dimbali na nit ñi nitu àdduna yi ngeen di xas nii te dégg naa ñuy kii di man gis nga Youssou Ndour mu intéressé wu ma du Youssou Ndour ma intéressé du kenn ma intéressé mais Youssou Ndour sax da ngeen ko war a may jàmm dafa am yoonam di ko def yéen ñëpp kenn ku ci ne yaa ngi sa business yéen ñëpp kenn ku ci ne yaa ngi sa li ngeen di def ak li ngeen di wax doo leen ko wax kenn bàyyi leen doomu aadama yii yàlla suturaal ñuy dimbali jaam ñi di jariñ jaam ñi di takk di jóg di liggéey ngeen jàpp leen di leen xas di leen wax lu bon di soxoro leen daf leen i góor jigéen daf leen i bon daf leen i mandekat daf leen i drogue daf leen jëpp te yow la ngay wax ca kooku yow yaa gën a bon képp ku taxaw di bonal doomu aadama rek yow yaa ngi wane sax mbon soxor ngeen def ba dee ak ngeen a bon ku soxor rek yàlla na ma yàlla musal ci yow ndax man ngaa def lu ne da ngeen a zalu da ngeen a soxor te ka ngay téem di ko xas bu beroog yow génn la deux millions nga kott ko ñaanal ko ni yaa fi gën mais yenn yi baadoole yi képp a koy def baadoole képp moo lay xas léegi nga may ko léegi dara mu daal <laughs> nga rek nit matut waxaat ba génn ci sénégalais gis ngeen seen ngeen di wax du jàll fii. jaal bi abooru jël léexi la yallaahu jàpp amoo leen ko ndax jàmm bi ak jàmm bi ni mu war a dundee dundoo leen ko ni ngeen war a jaamoo yàlla sax fa seey fa dee fa di ko dund maandu ci ñëpp yéene ñëpp jàmm Youssou Ndour lu def seen yoon néew ci Macky lu mu def seen yoon néew ci lu ci lépp yàlla moo koy réglé li nekk ci géej gi ak jéeri ji yàlla moo ko moom ñun ñëpp yàlla moo ñu moom na raay jub ñu xam ne yàlla moo ñu moom ñu gore lu waaye am ñu yéene ko ko loo xamal nit ki ci lu bon ngeen maandu yéen lan la génn di jéem a yàq deru jàmbur yi di yàq nit ñi seen bopp rek ngeen koy def mbon gi seen bopp rek yenn yi saxoor soxor la zalu soxor la nit ki bu la yónnee bu weccat da ngaa war a delloo weccat nit da ngaa war a jub nit dangay ñaan ñu may la bàyyi sàcc bi yéen nit ku am fulla ngeen ni dafa bon nit ku respecté alalam ngeen ni dafa nay nit ku am maanaam méthode travail ngeen ni dafa tiit mais yéen lan mooy yéen yéen yéenay ñan yéen yi yéen yéen lan la lan la mais seen soxor gi ngeen nekkee ci réseaux sociaux yi war ngeen koo bade soxor ngeen soxor goo xamante ni nii te boo gisee kiy wax sax lu mu lekk sax amu ko kiy wax di soxoree doomu aadama yi di leen xas lu mu na sax amu ko boo ko mayee léegi ab junni mu sukkal la raamal la mais affaire u taana sëy yi mooy lan mais seen mbon gi lan la am téléphone boo leen mënee filmer rek tax ngeen ni amerde doomu aadama yi di sonal nit ñi soxor ba dee. billahi wallahi taala man politique ma dund ma kenn bi barke laa ilaha illallah li ma leen di wax nii man barke maam Cheikh Ibrahima Fall billahi wallahi taala na bépp jug wala Sénégal gépp jug di xas kenn. kooku même bu tooñee dinaa jug ànd ak moom rajaxe leen ba ngeen lem yéen ñëpp billahi wallahi taala barke laa ilaha illallah.